da fay nii rek mais mais góor léegi comme journaliste dañoo far <laughs> euh, euh, kii far société civile far léegi elee kilifa diine non kilifa diine yi man moom wóolu naa xam nga lu tax ah. c'est nag ñun communication bu ñu soxla ak homme politique non gars yi ñu ngi régler problème yi gis nga kilifa ñàkk xam li mu war dafa bari kilifa diine li ñu lay wax mooy mhm. d' abord kilifa kenn du ko soñju <laughs> kenn du ko yedd ci mbooloo aussi kenn du yedd ci mbooloo dëgg la comprendre moom la mhm. mais kilifa diine mënul di def lu ñuy def mhm. ba pare gis nga xam nga am na benn histoire bu am te histoire boobu dañ ko dévoyé gis nga le 23 juin nit ñi dañuy yaakaar ni li bu amoon buntu assemblée moo reculé loo Ablaye Wade non non c' est pas ça sëñ Bass Abdou Khadre mhm. Mbacké mhm. lañu lañu dépêché mhm. yaa ngi dégg au palais man moom duma man man man dama rus di waxantu mun naa wax sax audience ma ñun ñoo fa nekkoon mais du ma si dugg man moom xam naa ba su ma bindee livre Cheikh Yérim day bàyyi bind ndax xamul dara moom Cheikh Yérim mm, ah xamul dara il n'a aucune information moom day créer nii rek ah, man maa ko ëpp information non Cheikh Yérim moo a arrêter li muy def ah, non moom il se présente comme journaliste bu xam affaire yu bëri. mais xam yu bëri dafa mais Yérim xamul dara su ma bindoon livre mu bàyyi ma ne su ma bindoon livre mu bàyyi. waaw la ma sa problème Cheikh Yérim. non du ma am benn problème ak xam loolu man su ma bindoon mu bàyyi bind. ah bon looy xaar pour bind kon. non man yegguma si parce que man dama jàpp hmm. am na ay secret d'état yoo xam ne bu fekkee ko de par ma position. wala ñu wax ma ko de par ma position ba àdduna di d ma ko wax du ma ko bind si livre du ma ko wax si livre. Mhm, da nga téye dama koy téye. Mhm. dégg nga wax ba mais man xam naa ni sëñ Bas ba mu ñëwee yegg si yaa ngi dégg nekk porte parole kilifa diine yëpp na. Mhm. parce que gars yi dañoo concerté waxtaan. jox ko jiital ko ba ñu ñëwee dugg biir palais. mu nekk ko sëriñ yi nee nañ sëriñ si nee nañ. sa projet bi nga am nii te muy waaja a taal réew mi retiré ah ko. à la la ko lay Wade retiré. léegi nag après ku nekk nag di nga def say interprétation nekk suñu xeex bala mhm. suñu kii wala suñu kii wala mhm. mais looloo amoon kon kilifa diine yi mhm. nga rôle bi ñu doon joué ñu ngi koy ba léegi mais rôle kaay ma xam la nag bi kilifa diine yii bu leen yaakaar ni saaga si internet bi ñu ngi koy liir kilifa diine amul jot waaw amul jot boobu xam nga médiateur boobu xam ne moom lañ nekk fii am na ay problème yu bëri yoo xam ne. gaa yaakaar nañu ñoo ko réglé réglé wuñ ko de. Mhm. gaa ñoo ko réglé xam nga xam nga loolu dafay andi rek dafay gën a fësal crise de ah. valeur bi nga xam ne moom la Sénégal nekk di dugg nii. parce que soo gisee euh, xam nga nee nañ euh, naar bu ndaw. Mhm. maa ngi nuy sama xaritu naar yëpp. Mhm. lépp lu mu wax. ca tànt ba la ko déggee parce que boo gisee ni ngi di làqatu ci internet bi di saaga kilifa diine ci seen leader la ñu koy déggee. seen leader yi nag dañu koy

jàpp na ni kilifa tel dafa jenk alors que demeewul noonu dañuy wax ni kilifa kenn di ko yedd ci biir nekk mm-hmm. ñoom lan moo leen leer ni kilifa yi waxuñu ak ñi ñu war a waxal mm-hmm. est-ce que waxuñu ak njiitu réew mi est-ce que tey président Macky Sall bàyyi gi mu bàyyi troisième mandat bi mm-hmm. mais forcément kilifa yi ñoo ci wax parce que président Macky ci biir ay waxam wax na ko nee na yéen ñi taxaw fii di ma ŋàññi naan awma droit def beneen mandat xam ngeen xel ni am naa ko te su ma neexoon dama koy su ma leen toppoon mm-hmm. dinaa déclarer sama candidature mm-hmm. kon lan moo tax demul jusqu'au bu parce que am na ñu nekk ci ginnaaw wax ak moom te ñoo ñooñu kilifa yi bokk nañ ci. Mm-hmm. léeg nga dégg eh, ay nit ni wuy euh, kilifa di waxoon na ni lebal ngeen ma mais lim leen wax lebal ngeen est-ce que fayu leen ko ci ci ci ci Macky Sall bàyyi bàyyi mandat bi est-ce que du loolu moo nekkoon bor bi. donc euh, homme politique yi nañu dem ak seen xel te bu ñu yàq réew mi parce que tey bu société bi mel ñoom am na lu bëri ñu ci joué. té dañuy utiliser population bi ñu leen di xéxal seen xéx bop bu ñu demee ba tollu ci fañu bëgg tollu yalla population yi parce que lég lég nga dégg ay nit waxé no xamni ni man dama yërëm ñooñu xam nga ma leen di yërëm dama japp ni ñi ils n'ont rien compris mm-hmm. parce que pour man combat bi ñu wara a tay mm-hmm. surtout société civile bi dañu dañu am tay défi bu mag bu ñu war relever conscientiser population yi parce que tay gis nga ba légui pour man population yi dese nañoo xam dëggantaan mm-hmm. njarñu carte électeur parce que ku xam deug deug njarñu carte électeur do nangu do d'accord ci ñu nan dañuy wax waxu coup d'état mm-hmm. do ci d'accord mm-hmm. ku xam deug deug deug njarñu carte électeur do engagé wu and ak homme politique mm-hmm. ba mu jaral la nga yàq sa carrière pas sa purman ba sax sa bakkan nar ci xat parce que pour man combat foofu la wara toll sank doudou wax ci affaireu euh, démocratie man la gëm man dama gëm ni unanimité yalla sax su yàlla suñu borom sax amuko hmm. quand tu lis les grands penseurs de ce monde nga xamni c'est des philosophes bind lu leen neex ci yalla suñu borom te su leen neexoon yalla wal leen fofu léegi léegi léegi léegi. Hmm. kan mo yalla suñu borom. waaw dafa tok bàyyi leen. Hmm. Seydina Mohamed non. donc pourquoi ñom aussi les hommes politiques ñen ñi bëgg ni saa bo yëkëté kàddu jëmele ko ci ñom da nga wax ni gongo tout comme ni nga waxé ni. Euh, bu ñu nekk dafa war a am ñu ànd ak nguur am ñu contre nguur ñii bëgg dem dialogue dañuy dem dialogue mais ñeneen ñi nga xam ne ñoom jàpp nañu ni danoo bëgg def seen benn contre dialogue ca wet ga bu ñu paree jël seen euh, euh, conclusion dem jëbal ko dialogue ba loolu aussi c'est une excellente idée. Hmm. comme Dakar ni mu amee woon forum de l'eau mu am forom bu mag bi nekk ñaajo beneen forom bi nekk mairie Dakar. Hmm. parce que pour man affaire noon la war a demee a ak yow fii mais man ngi koy defee fii su ma paree nag comme yow yaay kilifa gi.

soo ñëwee pouvoir waaw mais mais waaw mais du fi jeex du fi jeex parce que lolu parce que parce que lolu président Macky Sall mi ñaata yoon lañ ko vaar hmm. Hmm. ñaata yoon lañ ko vaar ci ay hmm. wax yu mel non yo xam te daan nako wax le président Wade aussi ñaata lañ ko vaar mu doon wax lu wax wax ah, lu nek mais c'est ça xam nga donc ñi fi nek opposition tamit buñu yaq yàq réew mi parce que discours yi ñi wax ci seeni salon diko wax ci sen conférence de presse diko wax ci sen bureau politique loolu la sen militants yi diko reprendre avec violence cette fois-ci dans les réseaux sociaux ñu ci bëri di laqato ak ay profil di wax lo xamanteni ni tayji ni nañ def attention te encore une fois damay interpellé gis nga terrorisme bi jombul ben rew nañ def très attention jombul ben dëkk te man lima lima limay metti léeg-léeg di nga contre nit ba même suy wax deug sax nga ne non loolu ay wax la bi ci mujj rek gis nga bus tata bi nga xamné il a fallu que ñu am ay corps calciné ba xam ñom fu ñu dëkk ñu mëna gëm ni loolu dëgg la parce que heure bu ñu alerté wax ci mbirum terrorisme ñu né wuy ñom ñoo créer seen force occulte ñom ñoo fi créer seen nit nangam sangam donc vraiment hmm. homme politique nañu jàppale <laughs> nañu jàpp nañu nañu nañu jàppale waaw je d'accord mais xam nga mais ah, xam nga xam nga seen communication seen communication am na lu bëri lu ñu leen ci mën a reproché bu ñu doon wax tey fii ba suba duñ ci jógee mais tamit à chaque fois bu ñuy wax loo xam ne ni dafa méngoog mm-hmm. yenn problématique yu laal sous région bi mm-hmm. même soo ko gëmul itam bu ko weddi mm-hmm. absolument même soo ko gëmul bu ko weddi mais tey bu fekkente ne ni dañu wax des choses graves ay bindkat yu ñu respecté parce que man damay bëgg di convoquer tout le temps Bakary Samb parce que dama dama am dama dama waa voilà parce que dama comme sama yeneen morom journaliste yi mm. euh, bokk nañ ci ñoo xamante ne amoon na ay temps doon lañ leen suivre seen liggéey ci wàllu terrorisme mm. ñu expliquer ba expliquer euh, nit ñi mm. taxawaay bi ñuy am tey bu ñu bëggee déstabiliser réew te tey Aïssatou boo xoolee lii ñu gis ci réseaux sociaux yi nii yëkkat tudd turu kilifa diine. waaw teg fa teg fa yu yëkkati lu ñaaw. au nom de quoi. ah loolu nañ ko xoolaat. nañ ko jàngat nañ ko jàngataat est-ce que loolu. mbiru politique rek la lu jar a la